mbega na mayoniro internet Leewtoo TV ñi topp ci li nga xam te ne mooy seen émission Leewtoo ak gëjoon naa leen gis na moon naa leen lool lool lool mais li ko waral li tax a taxa ma nga noonu ba tax na tey dañoo ñëwaat fii ci nga xam ne mooy géejawaay fekk fi beneen jeune beneen xale beneen daanaanu làmb kañ dalal nag mooy Marley fas yéene dugg waxtaan ak moom ci lépp lu ko soxal nee naa ne Leewtoo ak nag day wax ci mbër mi dina wax ci moom avant mi nekk mbër ba mu nekkee mbër ak lan mooy ay projet am kon sama cameraman mañ pro dañuy daal di dugg rek fekk fi nga xam mooy Marley waxtaan ak moom ba léegi maa ah ne mooy dawal lu mu dawalul man bëgguma faama naa la bu baax kon dañuy daal di dugg rek xool ma kan mooy noonu bëgg naa la bu baax champion maa ngi siyaar bu baax na Mbacke di leen bëggee bu wër a wër di wax mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax invité li nga xam te ne mooy Leewtoo ak mhm. waaw di si am contentement rek di wax ñu def émission boo xamante ne bu jaar yoon la rek boo ko ko seetaan bëgg xam sa xol mën a sedd. ma nga noonu nag ko koy marle kon dañ koy bàyyi mu entraîné rek suñu paree dellu këram waxtaan ak moom bu baax a baax ah réparé maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax beneen champion la raxam la aussi réparé nuyu naa la. waaw Ndeye Mbaga ñoo lay fay. waa sant Serigne Sall wér. dañuy fekk émission bi ko ñaari émission. waa dëgg neexul waaw. waaw ñu bàyyi la ñu ah, léegi léegi. Mayo Dilo ma nga noonu nag comme ni ma leen ko waxee ci début bi rek tey Marley lañ seet si woon nekk fii ci écurie Papa Kane fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari ci làmb ah. nee naa leen dañuy commencé rek fa mu débuté daal di ñëwoon rek moom ci làmb ji Marley nuyu naa la. maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen fay bu baax di wax mbaa yéen a ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baree bare mm. bëri. yàlla na jàmm yàgg. di la kontaanee bu baax ñu invité ci nga xam te ne mooy émission Leewtoo ak kan mooy Marley suñu ko mënoo xam nga tënkal ñu ko ci lu gàtt kuy Marley waaw maa ngi nuyu émission Leewtoo comme ni nga ko waxee di leen bëggee yéen ñëpp di leen masawu coono xam nga di wax ne bëggoon nañ ko bu yàgg may teel ko suñu borom dogal. Mm-hmm. waaw Marley ngi nii nekk benn jeune boo xamante ni dafa juddu xam nga màgg bëre neexoo mu nekk si xam nga rek tamit yëfu góor daal yaa ma gën a xam. yëfu góor Marley mm-hmm. balaa ngay dugg ci làmb doon def avant. waaw man sama métier menuisier métallique la soudeur. yaa ngi ci ba léegi walla non actuellement ni nekkuma si nag quoi mais moom laa tarbiyu xam nga jànguma école defuma dara xam nga sama lépp daal menuisier métallique la quoi avant maa dugg si làmb. lu waral nga nga ko nii mais bàyyiwuñ ko sax ba mu jeex mais dafa fekk ne xam nga rek bu fekkente ne da ngay bëgg a def deux séances wala trois séances doo ko mën a boole ak leneen. Mm-hmm. moo tax da ngay mën a suivre loolu. li naan da ngay bàyyi dara xam nga. pour a def dara quoi. Mm-hmm. sama di daal làmb moo tënk daal. waaw moo ma tënk nag. moo ma tënk trop trop sax. dañuy daal di xuus rek ci biir làmb ji Marley lan moo dugal ci làmb. waaw làmb li ma si dugal mooy sama mag réparé numéro moo dem entraînement ma koy topp. Mm-hmm. mu nekkoon moom ak ñoom mm-hmm. maa ngi koy ñaanal moom yàlla na ko yàlla def ba ñu bàyyi ko daal comme caabi da ko féete ginnaaw. Mm-hmm. xam nga mu ñeeri seetaan si ki ma tuddee sama bopp Marley ne ma yow mbër nga mën a ko noonu. mu ne ma yow ñëwal ma inscrire la fayal ma 1500. ma ñëw commencé entraînement looloo indi bëre bi. mais nag tamit don la daal benn essence. nga jël sa bopp tuddee Marley lan moo warat lan moo tax nga jël sa bopp tuddee Marley lan moo la gën a neex ci moom. waaw moom moo ma ko tuddee moom moo ma gis xam ne ma yow yaay Marley numéro 2 ñëwal ma inscrire la ma inscrire commencé jàppante tur boobu laa mos am si làmb. Mm-hmm. mosoo mm-hmm. changé. non non non non. ca noonu nag nga dugg arène daal di bëri sa premier combat waaw sama premier combat ni ma ko dundee mooy dañoo nekkoon si mbapat yi. Mm-hmm. booy xool suñu tuur dafa jiitu si arène bi sax dañoo nekkoon si mbapat bi di ràññee di ràññee xam nga ba yàlla dogal man ak Aziz Pambaay ñu bëgg suñu combat. Mm-hmm. fekk ñu bëree mbapat man ak moom Pambaay Salbaax moo ko tëggoon. Mm-hmm. biñ bëree mu nekk làmb ju neex ba ñu mat si niil ñu ne léegi faw ñu bëree ko arène. ba combat bi dem bay bëgg taxaw mais après gars yi dañoo bañ ne comme géejawaay la duñu ñu Mm-hmm. ñu bàyyi noonu mu sedd xam nga ma dem jëli keneen moo joon numéro 2 bëreeg moom lamb banlieue muy lamb sëñ Modou Niang. Mm-hmm. Mm-hmm. nga bëree premier combat. premier combat sax dañu naan chaque jour day am benn tension est tension boobu dundoon nga ko. non non ma ko moom. dëgg yàlla damaa ñëw xeex bëri. amoon benn stress comme si nga war a jóge lutte simple. dem ci nga xam ne dem bëri arène tout avec frappe ak ni muy bëree coow. amoon benn pression ci doon. non non amoon si pression ndax boo tàmmee mbapat moom arène du la jaaxal. Mhm. waaw mbapat moom boo ko tàmmee moom pour nga dem ci géew naan da ngay jéem a patiner wala da ngay jéem a am leneen looy xalaat non mhm. ndax benn combat la talee moom xamoo ñaata combat ngay bëre. mu ngi noonu ba nga dalee ba léegi mën naa ne yàgg nga daj nga ci lu nekk def nga ci lu nekk lan moo la gën a marqué sa carrière ar Marley. waaw mais àdduna moom day dëkkee neex day dëkkee naqari. Mhm. waaw suñu carrière. am na si lu neex am nañ si lu naqari comprendre nga tamit liñ si gën a marqué mooy tey yàlla doy dogal bu ñu amee loo xamante nii lu ñu mën a maanaam faj la te xalaatuñ ko kenn suñu bopp lañ ko xalaatee. Mm-hmm. loolu tamit sant nañ te marqué nañ si bu baax. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. doo dem ci kenn di ko sonal. doo dem ci kenn nan ko nii wala nii li ngay def mooy. tey jii bu doon da nga nekk si leneen suñu borom mën na laa fekk si loolu mais comme si lu ñu nekk nii tamit suñu borom dimbali nañu si daal. Mm-hmm. Mm-hmm. ma la neex nga sa première défaite noo ko dundee Marley. <laughs> waaw mais dama xam ne man sama premier combat dama daan deuxième combat bi trompeur daan ma. Mm-hmm. comprendre nga mu doon loo xamante nii da ngay xam victoire xam défaite day metti nag. muy sa première défaite boo ñëwee di daanu sax mais doo gëm ne daanu. parce que gëmoo maanaam. musula arrivé comprendre nga bu la arrivé day métti mais boo demee nag ba min ko da ngay xam ne ñaar yi moo am muy victoire ak défaite mhm. ci noonu nag anecdote <laughs> ku dund lu neex di nga dund lu naqare mhm. waaye aussi di nga dund loo xamante ne nii heure boo ko fàttalikoo daf lay def ay ree anecdote lay nekk ci yow lan la Marley waaw loolu day am xam nga da dund loo xamante nii boo ko fàttalikoo daf lay def ay ree da ngay dund loo xamante ni tamit boo ko fàttalikoo mën nga soxor mhm. comprendre nga waaw li ñu dund daal si lu ñu neex bari na lu ñu dund si lu ñu naqari tamit bari na. Mhm. lu bari doo ko mën a yaatal. mais foog nga ya foog nga yaatal ñu benn foog nga yaatal ñu benn. foog nga mm. ñu benn. <laughs> waaw mais loolu moom bàyyi ma ñaan la ko rek xam nga yaa ma gën a xam. ñu ko ñu tënk ko waaw. <laughs> Euh, Marley nga nekk mbër. dëkk fi nga xam te ne mooy diggante Guédiawaye ak Pikine ba relation nga am ak yeneen mbër yi. jàmm ak salaam. waaw mbër yëpp muy mbëru Guédiawaye muy mbëru Pikine mbëru Parcelles mbëru feneen ak feneen. aw ma kenn xaar ma yàlla. mais dina am koo xam xamante ne ni di ne kii kii kat sama gaañ la même bu doon bëree keneen sax kii laay faral. no benn xaritu mbër laa muy Aziz Pambaay. Aziz waaw moom kese ñi si des géejawaay samay grand lan ñii samay rax lan. Mm-hmm. waaw Balla Gaye yàlla dogal na man ak moom ñu am relation mais teewul xam nga man Aziz Pambaay mooy sama xarit. Mm-hmm. mooy sama gaañ. mais ñi des samay mag la ñi des samay rax la. Mm-hmm. ci noonu nag combat bu mag mu ngi ñu ngi koy dëptal jëm ci la 4 avril di dox diggante ki nga xam ne ne mooy la dagee le puncheur de Waalo ak Eumeu Sène borom tay si nga borom dof lu weer mm-hmm. combat bu boo xam noonu di ko dikkee kan ngay jox fa ah combat boobu kay li ma si bëgg mooy la dagee ñëw dóor ko mu daanu wala mu jàpp ko daan ko. la dagee daa nga àndal. ba bu baax ñun géejawaay lañ bokk géejawaay lañ dëkk moom la ñu tiitaroo couleur géejawaay la ñuy teewal ñoo bokk couleur bu ñuy teewal ñun ñëpp. nga nekk mbër xam la da guerre xam Eumeu Sène nga xam ki fooram xam kii aussi ñoom ñaar ñëpp ku nga sa foor mhm. instant bi boo doon conseil la da bu ma ko doon conseillé li ma koy conseillé mooy mu ñëw taxaw di xaar comprendre a attaqué mhm. ah, ma ko man ñu gis Eumeu Sène mise ci li nga xam te ne mooy box doon xeex kan moo ci ëpp avantage. non avantage bi Lac de moo ëpp avantage ci xeex. Hmm. waaw moo ko ëpp avantage fu sax du ñu benn sax ci xeex ñoom ñaar. waaw ndax xam nga ëm bu fekkente ne day xeex balaa moo dóor day daw yóotu. day laaw waaw day laaw comprendre nga. Hmm. te Lac fi mu taxaw mën na di la jam ko. te Lac moo ko ëpp prolonge. moo ko ëpp prolonge mais ba tey loolu du dara ci làmb. Hmm. mais daal man li ma koy digal mooy bu mu nee mu taxaw di xalaat di xaar ba xam nii wala na attaqué rek. dañuy jàll ci beneen combat combat royal bi dox ci diggante Modou Lo Ama Baldé. Mhm. ko jox favori. non jox ma kenn favori xam nga tey jii ñu si bari bu ñuy jox favori ñoom Modou Lo la ñuy jox favori. Mhm. mais man jox ma kenn favori làmb la que le meilleur gagne Ama am na lu mu def Modou lu mu def. Mhm. tey comme ñenn ñi ni ñuy gisee mooy Ama moo gën a soxla comprendre nga. Modou Lo it moom bëggul ñàkk roi des arènes fi mu toll nii. yaa ngi dégg te bëggul it Ama dëpp ko moo tax làmb ju doy waar doon. te Ama dégg nga li mu wax nee na moom bu ko leeroon ni moom maanaam comme roi des arènes ko leeree bu ko leeroon ne bu deewee àjjana la jëm kon day dee. dëkk na ne ah. set set Modou moo leen mën maanaam juróom-ñaari Modou moo leen mën waaw parce que xale la mi ngi liggéey comprendre nga mm-hmm. te am na gëm-gëm ne bu jaxaar léegi Modou da koy daan mm-hmm. Modou Lo it am gëm-gëm boo xamante nii boo mënu koo daan moo tax làmb la boo xamante nii bu doy war la daal day métti décortiqué. day métti moom. ma xam noonu dañuy dellusiwaat ci cappaandaw gi ah moom day mbili gi marle war a bëri ki nga xam ne mooy Neko Rell la sa combat Neko Rell noo koy préparé. rek mais bii tamit moom da si raw. Mhm. comprendre nga. Mhm. ndax dama bëreeg jën kayre jëlee si defet mhm. ñëw am booy bawal gis nga li yàlla def arbitre bi sifflé mu tourné mel nit woo boobu noonu di daw yaa ngi dégg. <laughs> moo war a ñëw nag xam nga comme ni ko réel comme li gars yi wax ne ñëpp dañ ko fee bàyyi. ay adversaire yu adversaire lañ ko utal. utal nañ ko seize adversaire waaw yëpp en cuul yow maar la yow nga ne yaay ma fit bi yaay engagé yaa ñeme. waa xam nga du ma fit du engagé du ñeme ndax xam la moo tax si suñu métier lañ nekk. te yaakaar naa moom war nañ mën a bëri. mooy li ma ko waxoon rek ne ko bu sax bu làmb bu ñu boolee nii sax mooy si li ma jógee. mais kon maa ngi si maa si leneen. da gis ne yow da nga xeeb yow Nico Real. non xeebuma ko mais maanaam nekkuñu woon ay adversaires yoo xam ne war a daje heure bii la. da jàpp ne yaa ko jiitu ci làmb wala yaa ko ëpp niveau. moom moom moo ma njëkk a bëre. mais déggoo li ma la wax bu nekkul woon si li ma génn nii man ak moom duñ bëri. yow doo ko xool non ñu gis ni da ngaa da ngaa ñeme Nico Real la seen combat la am tension. waaw loolu parce que moom am na lu mu capable mais man it waaw moom xam na man xam na te mbër moom yaakaar naa bu seetaanee moroomu mbërëm rek xam na lu mu mënee ak lu mu mënewul. yaa ngi koy suivre bu baax yaa ngi ay combat non wax dëgg yàlla nag man biir yi taxawee ba léegi jàpp ma sax naan damay seetaan ay combat am ak sa adversaire adversaire potentiel mm-hmm. nee na ñëpp dañ ko fay bàyyi nga jël ko waaye dina la wo dina la won ne du sa moroom genre yooyu noonu. yaa ngi bàyyi xel bu baax. non bàyyiwuma xel si loolu noonu sax ay du sama morom ak si xel. Mm. man moom li ma bàyyi xel mooy yàlla nañu fi yàlla bàyyi ak jàmm rek ba le jour ji. amaguñ leen date ba léegi. non non amaguñ date ñu ngi déglu promoteur bi xam nga mi ngi rayante pour am date xam nga moom daa xaw a. métti mhm. instant bii nii. Mhm. mais ñu ngi koy déglu di ko ñaanal moom it yàlla defal ko jàmm alain comme papaam dafa gaañu xam nga jamono yooyu. Mhm. ñu koy ñaan yàlla xaare ko àjjana. mu doon grand bu baax doon grand bu bien koo xamante ni moom. yorul sax jikkooy promoteur. waaw Alain maa koy nuyu au passage. Mhm. nit ku baax la vraiment nit ku baax la. yorul jikkooy promoteur. Mhm. xam nga gars yi des fois da ngay dégg ñu naan kii yorul jikkooy mbër. Mhm. mais moom la. billaahi di ko ñaanal jàmm rek. muy noonu Alain ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ah, yaag jumbo borom peleñaa yi. <laughs> ñaar sa jumbo <laughs> de ak naqaree jot. <laughs> kooku ñaar séance d'entraînement ngay def instant bii nii. waaw actuellement nii deux séances la ñuy ah. suba gi la ñuy entraîner. Mhm. ak ngoon gi. Mhm. Mm, mais buñ demee nag ba xam ne heure bi nii suñu date nii la ak nii da mhm. def trois séances. da ngay dem géej fajar gi boo ñëwee tour tuuti dem saal ngoon gi nga dem école. Euh, CNG bu bees nga nekk jeune nekk ci làmb ji bu fa doon yokk wala nga fay wàññi dara lan lay doon. ah comme instant bi ñoom ñi ngi soog a ñëw te kenn xamagul nan la ñu doxalee. loolu moom doo si mën a waxagum. nan jéem a def daal loo xamante ne comme ki fi nekkoon am na lu mu def ñoom ñu jéem a ñëw def lu ko raw waaw même bu dee dañoo ne Alioune Sarr nekkoon na fii def na nii def na nii xam nga teewut tamit def na lu ne si làmb ndax xam nga nit ku ñuul moom moo bëgg lu bees mhm. moo bëgg tey xam nga bu yoree lii ba benn instant ñu nan changé kii jéem a xool keneen waaye nga la ki ñu fay teg na jéem a gën ka nga xamante ne moo fa nekkoon. moo nekkoon ba mu ñëwee def na premier pas wàññi na li nga xam te ne mooy licence yi. Hmm. arbitre dinañu rey woon ñëpp dugalaat na leen. waaw mais loolu seen normal parce que arbitre yooyu ñoom ñoo fi nekk. Hmm. ñeneen nekkuñu fi comprendre nga. Hmm. ndax arbitre yooyu boo xoolee ñoom seen kase demeewul noonu. te yow mbër bi nga xamante ne day fayeeku cent million yow arbitre yow nga ñëw nekk xam nga nekk maître am si biir. kon kooku war nga mun a am loo xamante ne nii buñ la ko fayee war nga bëgg. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. arbitre yi leen a war a fay ñoom bañ koy yëg bu baax a baax. Mm-hmm. parce loolu mooy yoon daal ñoom mënu ñëw di lu ne la ñuy jànkonteel nag ci biir géew. comprendre nga. lu ne mën na leen faa dal parce que mbër ak ay bagages am rek dafa doy waar. waaw moo tax war nañ leen mën a gëstu ñoom arbitre bu baax. mais li waa ji def moom xam nga loolu lañ koy rafetlu woowaat leen. dugalaat leen si làmb ji xam ne ñii seen liggéey lañ nekk. te ñu jëm la ne yokkal seen salaire ba ñu yëg ko nag. <laughs> ma nga doon nag Marley ngi perdre ñi nga xam te mooy arbitre bi. nga jëm ci combat nekku réel yaa ngi entraîné nga ne deux fois par jour lan ngay wax say fans. waaw samay fans moom ñoom xam na ma bu baax wax dëgg yàlla te xam na li ma. capable bu baax mais amal nga leen bor. bu baax <laughs> amal naa leen bor amal naa leen bor mais dinaa ko fay incha allahu mhm. xam nga mbër moom bu tegale woon cent victoire sax bu daanoo benn yoon xam nga amal na ñi koy supporter ñëpp bor. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. parce que gis nga làmb li naan daan kese moo jig mbër <laughs> mais daanu daanu jiwu ko. waaw ah, mais man moom yàlla dafa dogal moom heure bu yàlla dogalee xam nga ma daanu su ma ñëwee sax beneen làmb bi mooy waaw. mooy dàq mooy mooy gën a supérieur si ay nit ñi ma indi. est-ce que yaakaar nga ne làmb bi di ñëw di nga mën a mobiliser comme li nga daan mobiliser ci ay supporters. waaw làmb ji di ñëw déggoo li ma la wax dinaa indi loo xamante nii mosuma koo indi bi ma dalee bëre ba léegi. da ngay yokk cere doolu ñeex. bu neexee suñu boroom dama ne la yaa ngi fi maa ngi fi. Hmm. bu la neexee nga dugg nga xool sama maanaam làmb yi ma weesu nga xool public bi nga xool làmb jii di ñëw nu muy demee. Ah, kon baax na la nous le dira. Hmm. yaa ngi jàkkaarloo nekko Rêl ban message nga koy lancé. waaw ñu def la rek. def fayda def jom te xam ne promoteur dafa yëkkati xaalisam jox ñu pour ñu préparer wu pour xam nga mën a neexal bisam te incha allahu rabbi man ci sama côté dinañ neexal dinañ yëngal dinañ def lépp ñu ngi koy xaar sa côté yow it la pour ñu bëggal supporter yi bëggal promoteur bëggal ñëpp ñoo xamante ni ñu baaxeel combat bi. nga lancé wàll aussi appel ci nga xam ne mooy supporter yi ñi bañ a topp xamul comment dire ma ne topp mbër mi daal mbër bu mm. ñëwee tàngal ci géew gi pour ñaar ñaari mbër yi la mais supporter nañ indi fair play 100 pour cent ñëw accompagner seen mbër supporter ko ñibbi ci jàmm ak salaam bañ a topp benn violence ci làmb ji. waaw xam nga supporter yi moom seen fugg la ñuy demee yaa ngi dégg làmb moom moo violence ñoo ànd mm. comprendre nga. ndax bu amul violence rek du neex ndax boo xoolee gaa yi ñu doon wax wii kuloo ñu ne non bëgguñu ko. comprendre nga kon làmb bu amul supporter du neex supporter yi faaw ñu yëngal mais nag esprit la ñuy demee. Mhm. man moom ku xam samay supporter xam ne bu ñëwee dañuy bégee dañuy yëngal mais duñ tooñ. Mhm. Hmm. Marley kontaane naa la bu baax a baax a baax gise bi jafe woon na mais yàlla tey la ko tuddoon di la bégee bu baax di la remercier di la bàyyi nga tàggatoo ñu dem ba yoon. waaw di bëggee waat ñëpp xam nga di bëggee sama grand réparé moom mi ngi ba Gabon maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee Lamine Naar ba Italie maa ngi koy nuyu di ko siyaare xam nga di bëggee ñi nga xamante nii ñooy bëggee Marley ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di bëggee sama yaay bu baax a baax a baax di ñaanal sama doom tamit suba la anniversaire xam nga waaw di ko ñaanal daal mu dund ay ati ati at mm-hmm. waaw yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram may ko ñëpp incha allahu bi di ñaanal ñëpp daal di wax sama rax réparé maa koy bégee xam nga moom sama rax la sama lépp la te déggal na ma waa waaw wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal daal combat bi mu jëmit mu am si ndam di ñaanal Pape Thiam xam nga di ñaanal ñëpp ku lu ku nekk géejawaay maa ngi lay ñaanal yàlla na suñu borom may ndam incha allahu rabbi jërëjëf kooku moo nekkoon Marleya moo leen daloon ci li nga xam te ne mooy émission Leewtoo ak di ko jaajëfal bu baax di ko kontaanee di ko remercier di remercier waa gaale bi aussi naan sa doom bi rek di ko ñaanal gudd fan mm. ak wér gu yarama mm. sutura nag ak àllaaxira mu dund am ndey ak baay mm. di leen jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon seen émission Leewtoo ak ah moomoo maa lañu àndaloon ci volant moo doon dawal faama bégg naar bu baax Mansour borom caméra yi loo filmé bu baaxul lu jekk fii rek moom la leen jox dig daje ëllëg incha allah ak beneen mbër ci beneen quartier Mayo Dido